asalaamaaleykum wa rahmatulah ñun la Serigne Saliou Souaré nekk porte parole association boutique détail yi nekk ci Touba représenté wala fi association boutique détail yi nekk ci Sénégal yëpp muy ABDS fii Touba ASBT nekkal leen fi tey ñu ñëwoon defoon si woon benn siyaar boo xam ne daanañ ko def at mu jot daa ñëw di siyaare Cheikh Mouhamadul Basir moom sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo yore kàddu yoon wi moo yore organisation magal mu muy baax nag heure bi bu jotee ñu ñëw fi siyaare ko mais leeral ko situation yi nga xam ne moo am ci dëkk bi ndax comme que ñun ñoo yore wàllum njaay mi mu jëm ci wàllum li ñuy lekk li ñuy naan dina baax ñu koy leeral stock yi mi ngi yëg wala mi ngi wàcc wala mi ngi prix yaa ngi wala mi ngi seer kon day baax bu màggal gi desee ay fan ni ñu ñëw siyaar ko mais nag leeral ko fi dëkk bi toll lool waaw dañ ko leeral ne ko situation yi di jëm ci wàllum euh, stock yi nga xam ne moo daa am ci marché bi waxtu wi ñu tol nii nam daa demee ren demeegu ni gis na ne recul de stock am na bu baax a baax stock bi manqué na ci marché bi prix yi tamit seer na waaw instant bi moom soble bi ah, mi ngi en retire seer na pomme bi tamit euh, seer na tamit moom te na war a bi stock na war a demee demee guni yeneen bagage yu ci bëree bëri neexul ngay lim yëpp waaye am na ci bëri yoo xam ne manqué na suukar bedd wàccegul kon nag am na ci bagage yoo xam ne instant bi bu fekkee def na nii ci dëkk bi ak ndox mu bëri mi ñu def ba màggal des ay dix jours wala une semaine mata bagage amagut ci marché bi kon jafe mi ngi am ba jafe-jafe di am ne den woo suñu bokk presse bi alerté leen mais den ñëw bi nga xam ne moo yor organisation màggal gi leeral ko ne stock amagut période wàccagut te suñu sañan nit ñi jaay leen jaay mu yomb ñaara ba tamit ñuy lancé appel lu jëm ci société bu mel ni Free mi ngi teg euh, askanu Sénégal ci yenn forfait yoo xam ne ko fenn fu dul bëgg a jaay euh, transfert d'argent ñëw sensé suñu usines yi yóbbu ko par Free Money instant bi borom bitig yu bëree ci Sénégal ñu ngi boycotté mais ñun Touba ñu ngi leen di ñu ngi leen di lancé appel di leen a réagir ci liñ nekkan instant bi ñun den boycotté fii lañ koy waxe te ay fan yi néew bala ñoo màggal dees nañu ci dégg ñu firi moom Touba borom bitig yëpp den ko boycotté loolu daal bokkoon na ci li ne moom nekkoon na suñu message boo xam ne bëgg nañ leen ko jàllale waale yéen presse bi instant bi prix bi seer day moom prix day xëy def nii di yëkk a wàcc léeg-léeg vingt et un mille suba vingt deux mille tey am na ñu jënd vingt deux mille cinq cent ba vingt trois mille a wàññee ko ba kilo mën a dem maximum cinq cent wala six cent loolu nag moom la koy waral mooy état bi ñu wax ak ñoom ñu wàcce bagage yi bagage yi nekk port bu fekkee am na fa na wàcc bu amuti ñu gaaw ci ndax màggal Tuubaa nekk na lu mun taxaar bu fekkee dara xewut nii moom mën ngaa seere sa stock ku mën a jënd tuuti jënd tuuti mais màggal bu ñëwee moom il faut stock bi bu bëriwut manquement dina am te manquement bu amee prix dina seer balaa loolee am nag borom bitig yi moom dinañ wax seen ba ñëpp dégg leen leeral ni jafe-jafe amee ñoom duuduñ ci dégagé nañ seen responsabilité wane ni stock ya waran am amul ci yëpp la ci marchandise yu bëree bëri stock ba nam waran demee dina non ñoom mënu ma leen koo jiñ ndax bagage bu wàccut gëw bu bagage wàccan ñoom deen ko indi transporteur yi moom dañu seen xaalis wut kon man ki ma a teg problème bi mooy état état moom ma nga xam ne problème bu nit am rek moom donte ne moo ko teg boppam moo ko war a séeréel kon état na jóg taxaw ci lii balaa màggal gay ñëw